lan nga mën a tàggatoo ak sénégalais yi seetaan. xam naa ne bëgg nañu xam lu bare waaye ñu jëggal ma rek am na lu ma lu ma mën a wax am na lu ma mënul wax xëy na sax su ma la mel ni rëcc na wax yenn yi waaye ñu jëggal ma euh, bu leeree euh, xëy na ci yow yaa ma jàppale yaa ma dimbali euh, bu leerul bu fekkee ne am na lu matul ñu jëggal ma rek vraiment ñu jëggal ma. Euh, sinon affaire bi euh, yàgg na ñëpp bëgg nañu mu jeex man am premier euh té man cédé la bokuma ci dossier bi bokuma ci affaire bi donc cédé la mais lu may dund metti na trop faté na aussi wax la amul semaine mbokku ñu sama auto amul. ñu mbëkk sa auto mbëkk sama auto amul. lenn la trois quatre personnes ñëw mbëkk la tuuti taxaw nga wàcc kenn wàcc dem jëli sa portable donc euh, lu may def toog tranquille dugal suma portable suma poos wàcc bon puisque ci ginnaaw la y a pas beaucoup de dégâts parce que dama so je suis fatigué je suis fatigué dama so Je me ma circuler y a quelqu'un qui me suit ñu dem bu ma je suis ma droité croiser les bras Je bu mu tal suis dem Amna Je suis venu suis ma suis sans aucune raison brusquement mu Je brusquement mu heureusement Je suis ko y a la ma avant droité tel c'est comme ça que je vis Maintenant, je souffre beaucoup ragal naa nag mais j'ai peur pour ma vie parce que j'ai vécu ce dossier je connais un peu de ce dossier j'ai vécu ce dossier donc euh, ragal naa dëgg-dëgg Mon naa moo tax ma ñëw euh, parce que on ne sait jamais.

na nga ànd ak ñun ci lu ñu bëgg wala ñu faat sa bakkan loolu la ñuy dund ñun ñëpp mais bu ñu gisee professionnel boo xam ne choisirul dañ ko choisir pour bugg ko impliqué dafay gën a metti mbokk sénégalais yi Kéwoulo la euh, chaine des grands événements et des des enquêtes pratiquement impossibles ñu ngi leen di jox daje incha allah beneen yoon jërëjëf.